niñ ko gisee woon euh, noonu la demee élagement euh, Hadj Mansour euh, ñëw noonu ànd ak délégation am ab boo xam ne Abdou Diouf mën nañ sax moo ko envoyé pour ñu ñëw jaalee ci kii di Thione Seck comme ni leen ko waxee rek nekkoon monument aussi tamit def lu rëy ci àdduna toogoon naa ku nekk bépp président kon yaakaar naa ne tey jii nii bi ñu waxee loolu Abdou Diouf tey feddali na kóllëreem ak kii di Thione Seck di ko ñaanal rek li ñu koy wax rek yàlla na ko suñu borom xaare àjjana Euh, ci barki Seydina Muhammad waaw père euh, El Hadj Mansour Mbaye mooy génn noonu moo àndaloon nag euh, délégation bi ñu ngi koy gisee noonu mi ngi noonu délégation bi ñu àndaloon nag suñu baay boo xam ne kilifa la fii ci réew mi muy El Hadj Mansour Mbaye mi ngi noonu di génn mi ngi noonu ndeysaan lii daw na yaram moo ngi nii di ñuy euh, di génn président Abdou Diouf ni ma leen ko waxoon nekkoon suñu ñaareelu président fii ci Sénégal mi ngi noonu El Hadj Mansour Mbaye mi ngi noonu ndeysaan ndeysaan mi ngi noonu ngi noonu mu ngi noonu El Hadj Mansour gis ngeen ko mi ngi noonu nit ñi topp ko ndax mbégte bi ñu am ci moom ak contentement bi ñu am ci moom ndeysaan mu ngi noonu kon àdduna lii rek la lii moo am solo.